صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولنقاد الأمن asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk taalibe yi di leen siyaar bu baax di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi sëñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Sohaï bu kenn ku ne xam taxawaayam ak pastifam ci liggéey bi sëñ bi ni nga ko laajee fii bi ñu xëyee bi ñu sëlmalee tisbaar bi ñu sëlmalee fajar ci lañ tàmbali liggéey bi niñ ko baaxoo daan defee sëñ Abdoulaye Touré ak euh, sëñ Ibrahima Gueye ñoom ñu ubbi jotaay bi bi ñu noppee it xam nga ne kuréel foo bi nga xam ne mu baaxoo di jàng ma da foo sëy ni ñoom it ñëw feñal seen yéene bi ñu noppee ñu def méga kuréel boobu ak léegi nag la des mooy kuréel yi ñu ngi feñal seen yéene kuréel yi it xam nga ne raison yi daanaka mën naa ne raison bu ci nekk góorgóorlu nañ ba am kuréel gu la teewal fii loolu ci liggéeyu sëriñ bi ak yaatal ba bëgg rek kenn ko bopp ci liggéey bi wax dëgg bañ ko tàmbalee léegi nag amaguñ ci benn jafe-jafe ndax kuréel yi li ci gënoon a jafee ren moom lañ def muy dañoo fexe ba ñëwandoo ñoom ñëpp te loolu defe naa ñaanoon naa ko te loolu ñun mooy gën a yomal sunu liggéey loolu lépp nag li ko waral maanaam mooy commission bi nga xam ne ci lañ tënku te tënk liggéey bi wax dëgg yàlla liggéey nañ ci liggéey bu rafet bu am solo boo xam ne loolu tax ñoom ñu man koo jekku wàllu njàngeen wi it góorgóorlu woon nañ ci ndax avant muy agsi kuréel bu ci woon nañu programme te waxoon nañ leen ne leen nañu xam ne barab bi ñu jàngee am na lu mu laaj kon lépp loo xam ne lu fay def la lu sell la war a doon kon loolay kuréel yi ñu ngi ci góorgóorlu bañ toogee léegi wax dëgg yàlla ku fi toog xam ne njàng mi lépp njàngam cosaan la kon nag loolu lépp ñu ngi ciy ñaanal bu baax Cheikh Ahmadou Mountakha bis bu tedd bii jàpp naa ne fu waaye man a nekk war nga ko gën a ñaanal ndax li mu ciy def lépp jubluwu ci dara lu njëriñu la mbindeef yëpp loolu rek moo jubaloon mooy jubluwaayu Cheikh Ahmadou Mountakha bu ko defee nag ñii nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi muy sëriñ Amsatou ak sëriñ Youssou Diop kenn ku ne xam ne li bis bii avant muy ñëw taxawaay yu mat sëkk def nañ ko ci ba ko fi teew ku nekk xam ne li ci war lépp ñoom def nañ ko kon ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal te di leen ñaanal gënal la ñaan bu baax a baax ñi seqal la gi wax dëgg yàlla diggante kuréel yi même ñi nga xam ne ñu sax jànguñu ci barab bii ñoom ñëpp mel na ne jàng nañ fi ndax ñoom ñi fi jàng ñoo leen yóbbaale koo ci woo ku nekk da lay wax ne la sëriñ bi genn kuréel gu fa jàng ko ne yóbbaale na kuréel yëpp ndax barab yi wër jumaa ji fépp organisé nañ ko ba kuréel ya nga fa di jàng tey masal moo jëloon waa Touba kuréel nañ ci Touba lu ëpp ñuy kër sëñ Touba gii sos jumaa ji dafa jàng boo jëlee Kawlax noonu la demee nga jël Tiwaawan noonu la demee dégg nga jël Ndakaaru noonu la demee nga jël Ndar ak Louga ñi ngi kër sëñ Abdou Lahat mbooleem rek kenn ku ci wutal nañ sab dal ngir ngi sa bopp liggéey bi nos nañ ko nosin woo xam ne fenn fu ne bu ñu jullee fajar la kuréel tàmbali ba ba ñuy ñaan tëkkusaan kuréel loolu yëkkër jotaay yi kon nag loolu ab liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla ñi ngi ci àndal ci liggéey bi ñu ngi leen sant bu baax xam naa fi ñuy jeexale kon mel na ni bis bi mën nañ cee yóbbale euh, mën nañ cee yóbbale genn déggoo genn ànd genn bennoo goo xam ne ni sëñ bi woote na ko ñu gis ko fii waaye buñ demee itam ca daara yi ak kër ya war a wutal war a a wéyal loolu waaw loolu xam nga dëgg-dëgg mooy bëgg-bëgg Cheikh Amadou Mountakha Cheikh Amadou Mountakha dafa bëgg mboolem ñi nga xam ne ñoo yëngu ci xasiida ñoom ñëpp doon benn bëgg-bëggam yi mu ci sax xasiida yi ne bu sañoo yëpp doon benn loolu mooy bëgg-bëggu Cheikh mu Mountakha waaye nag rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo yëngu ci xasiida di def njàngum kuréel ak njàngum rayis ak njàngum durus amul séparation jotaay bi boo fi toogoon tey du mën a ràññeetle kuréel gi ak kuréel gee ndax amul présentation maanaam kuréel gi day ñëw bu jeexalee ndax ñaari gabaat lañ ko def comme ni ñu ko lëggee bu genn kuréel jeexalee geneen kuréel toog mënoo xamee kuréel genn ak genn parce que amul présentation ñëwee la gii fee la jóge wala gee fee la jóge waaye nag seen biir moom am na yëg-yëg bu wóor ci ne xëy na kuréel gi ba jóge kon nag liggéey boobu moom Sëñ Muntaxa moom moo ko def wax dëgg yàlla loolu liggéey la bu rëy rëy lim ñu war a jàngalaat nag nun ñëpp rawatina nun ñi yëngu ci wàllu xasida mooy nañ benn la suñu bopp doon benn di yëkkatandoo tegandoo lu waay nekk mel na ñëpp nga loolu dëgg-dëgg mooy liggéey bi kon loolu lañ doon soññee ci lépp lu jëm ci wàllu bennoo gi jërëjëf xasaayidi mi mujizatil muntaqa salla alayhi man hadahu wantaqa xasaayidi معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاج القصائد يا قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن